c'est que Bamba ay ari Fass Lawbe ay Jaal Mbay man Bamba xanaa nga doon dem fuural man maa gëm sama dëkk nag waaw da bëgg xam da nga doon dem ay Fass Lawbe ay Jaal Mbay mbay ma jaag mbedd nag waaw ma waxal fuy mooy ari Fass Lawbe mais mais Mohamed xam nga tamit aussi li Olof Njaay di wax ku ñëpp tufli aussi nga tooy waaw dëgg la de xam nga aussi yoon dafa a jaar yoon suñu yoon bi nag bu ñu waxee dëgg rek suñu yoon bi eh, yoon ba mu war jaar dafa das. et puis ont du pain sur la planche. parce que parce que la perception que les Sénégalais ont. la justice ci la justice sénégalaise. Mm. vraiment qu'on a justice sénégalaise la ah. loolu aussi c'est à corriger c'est ça aussi c'est à corriger xaw ma yan canal la jaar yan yan yan la ñu mën a jaar merci rupture de confiance parce que benn benn kilifa dafa wax ne ma une justice doit être aussi juste mm-hmm. si sa justice manque aussi ah y a de quoi s'inquiéter te loolu moo am mooy suñu justice bi aussi nan nga mën a comprendre nan nga mën a comprendre dëkk boo xamante ne peut-être que eh, ñi ñuy jàpp ak ni ko sénégalais di gisee mais les sénégalais la majeure partie des sénégalais ne sont pas convaincus si ni ñuy jàppaatee. très bu fekkoon ne tey ñi ñuy jàppee Sénégalais yi seen xel dal na si wax nañ ne seen aqulaay taala ah kii di def na lii wax ngeen ne lii moo tax prétexte bii ngeen ko jàppee teg ngeen suñu loxo lii ñu d' accord ah Sénégalais yi dañ na justice mi nga teg yoon. waa noo mën a comprendre que am na ko fi tuddoon ex député boo xam ne mu ngi tuddoon euh, Bougazali Seydina Fall Bougazali ñu ne woon nañ koo jàppoon si flagrant délit te tey fi mu toll nii kenn xamul mi ngi dox ay soxlaam kenn xamul lu tax mu génn nan ngay mën a comprendre tey ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko peut-être mu nekk leader politique bu mag opposant bu àdduna bi yëpp xam nga xëy xëy ne téléphone portable la këf si kenn foofu lañ ko téewee nan nga mën a comprendre ki nga xamante aussi mooy Bassirou Diomaye Faye nga xëy xëy ne xam ma lu mu def postom moom nga ko téewee nan nga mën a comprendre ki nga xam mooy euh, Fadilou Keita mu xëy xëy nga ne xaw ma loo ko téewee mais sénégalais yi lu leen convaincre nga bàyyi Kër Massar seen benn maire ñi nga xamante ne aussi mooy Bilal Diatta nga téye ko waxu waa Kër Massar du tax nga téye ko waa léegi nag kii wax na waxi Juan Branco parce que français la euh, dugg na fii par li nga xamante mooy par la ah génne fii par la mer après ñibbee par li nga xam mooy leer mais bu ko euh, ko xamante mooy Juan Branco muy nga bàyyi ko parce que jàppoon nga ko ba téyoon ko ba defoon ko sax nga xamante mooy mandat d'arrêt international te man suñu kër suñu koñ sama frère wax de man nii wax yow toog ba léegi muy Seydou Diallo mu nekk doomu jëmbat ñu jàkkaarloo kër mi ngi fi mu tuddee rëbës ñu téye parce que moom peut-être dañoo wax ne dafa laalantoo ak ki nga xamante mooy Juan Branco waaw nan mën a comprendre loolu nan nga mën a comprendre koo xamante ne peut-être dafa toog ne ku dee Euh, boo boo dewee ku dee ñu jël sa soxna wala dañoo war a jël di doomu aadama wala sénégalais bi dañ ko war a rey dañ ko war a faagaagal kooku kenn topp ko mi ngi dox ci soxla waaw léegi di dox soxlaam léegi ne après léegi nga jël ñenn ci waa léegi a waxee am si yow perception normal nan mën a waxee ne bizarrement boo defee constat ñi nekk prison ak ñu bëri bëri yëpp parce que dañoo nekk si benn côté bi muy oppose dañu opposé wu si état bi fi nekk bizarrement boo jëlee état bi fi nekk amul kenn ku bokk si ñoom ku fii may waxee yow wax ma kenn koo xamante ne nekk na si benn bokk yaakaar wala bokk na si mouvance présidentielle mi ngi rëbës toog di xaar. amul. donc loolu nag boo bëggee wax na nag la justice elle est juste Sénégal daan y de quoi s'inquiéter parce que souvent sax motif yi ngay teg li nga xamante ne mooy peut-être ngay téewee kenn moo dul dala xelu sénégalais yi parce que boo jëlee kenn par exemple ne vol de téléphone portable Ndeye Fatou wax na ko sànq ñaata sénégalais. yi nga xamante moom ñoo fi volé ñoo fi sàcc alalu askan bi ana li nga xamante mooy la cour des comptes ngi dox justice lan la wax si cour des comptes la mu waxoon si rapport bi nga xamante ne dañoo waxoon ay DG yu mag a mag ay kilifa yu mag a mag a mag lekk suñu alal askan dig def ci enquête juróomi weer loo xamante ne waxuma la loo téléphone portable hmm. mais mën naa jënd le distributeur hmm. agréé des téléphones portables mais ginaar ñu sàcc ginaar ba léegi def nañ ko juróomi at noo mën a noo mën a comprendre que opposant bu dugal li nga xamante ne mooy benn plainte France daal di xiddeen te kun bokk si état bi boo plainte opposant suba ñu jël si la. ñu taxawal la procès. léegi nag wax lañu Ismaïla Madior Fall. Eh. tontu si Sénégal si très bien ah, yaag Ndeye Fatou posé ngeen question yu am solo ñu war a mën a tontu Ibrahima Pouye on termine avec toi juste avant ñu dem pause ah sur la question. xam nga magistrat yi wax nañu leen naqari quoi. magistrat yi ñu leen di ñu leen dafa bari lool. par mm. rapport ak seenu liggéey. lañ leen di ŋàññee le ministre de la justice génnu ci. le président de la république génnu ci pour man parce que dañu wax ne pour la nomination des magistrats l'avis du conseil supérieur de la magistrature est donné sur les propositions du ministre de la justice après un rapport établi par un membre de conseil lorsqu'il statue sur la nomination des magistrats le conseil est présidé par le président de la république très bien Pouy moo tax ma ne le ministre de la justice génu ci président de la république génnu ci ñoom c'est le ministre qui choisit c'est le président qui nomme à travers benn conseil boo na ne ñoom ñoo koy diriger waa léegi ki abal gët moo la woon fay xool néew ma nag loolu moo am mais dem moo tax ma ne la seen problème ci mode de nomination bi la am ba pare tant que mode de nomination bi ngi jógee ci diggante président ak ministre de la justice ce quand on dit la justice n'est pas transparente dafay nekkal nguur suñu tënkoo ci texte bii ma liir lii dina mën a tax Sénégal yu bari mën a xam ne tax justice bi jéng ci nguur mais ñaareel ba aussi am na ci loo xam ne ñoom magistrat yi même bu président nommé ministre de la justice nommé leen ñoom amuñu benn sañ-sañ nekk ay suiviste wala di tënku ci ginnaaw ndigalu président ak ministre de la justice parce que lan la. parce que dañoo yor une institution. ah mais avant lool <laughs> avant loolu la justice. non dañuy ah. waat. Mm-hmm. dañuy waat le président de la république bi ñu koy faale bopp noppi lu muy def il prête serment les magistrats dañuy prêter serment seen diggante ak seen borom. et puis pouvoir bu ñu yor sax. mu ngi mel ni pouvoir bu ñu bu ñu xàjjale la ak exécutif ak ak pouvoir législatif c'est-à-dire pouvoir la bu nga xam xamante ni ñoom dañu koo war a tënku dañ cee war a tënku kenn waru cee interférer en fait avant mhm. dama ne daf am pouvoir bu leen féetee kaw te ñoom rek la ko yàlla may mooy yéen am sañ-sañ xool doomu aadama ne kii tooñ na ngeen tëj ko ci kaso ba yàq addinaam wala ngeen defar ko yéen am sañ-sañ xool doomu aadama ne kii tooñ même bu dee tooñ na mais li nga xamante ne pouvoir bi gën a garaaw mooy. gannaaw yàlla ñoom dañ ne dañuy jure on jure devant Dieu dañuy waat prêter loolu dafa doy sëkk que ñu war a xalaat seen bàmmeel moo tax ne la ñoom amuñu sañ-sañ ko ci dara. lu jëm ci wàllu président wala ministre de la justice wala pour am ay promotion gannaaw ba ñuy waatee ne dañ fiy nekkal askan wi dañuy def te yàlla rek tax seen dëggante ak seen borom waratu ñoo mën a amat benn influence bu dul seen bàmmeel léegi nag bu ñëwee tey jii ci cadre promotion UMS e dañ doon def seen assemblée générale. Chimère Diouf bii mooy deuxième mandat am. il a été élu près de presque avec près de deux cent et quelques voix. Mm-hmm. bokk na ci ay doléances seen âge retraite seen situation sociale financière seen nangam seen nangam wax nañu seen i doléance ba doyal ci biir doléance yi nag ci lañ ŋàññe li leen sénégalais di ŋàññee senegale am nañ droit ak sañ-sañ leen parce que xaalisu sénégalais ñoo leen di fay. war nañu mën a am. Euh, dama ne même au delà ŋàññe war nañu am un droit de regard wala. seen avis par rapport ak. mooy euh, dama ne am nañu droit am nañu droit ŋàññi am nañu droit ŋàññi am nañu droit seen i décision mhm. parce que duñu yàlla. Mm-hmm. waaw rasulilah salaahu salaam ba mu toogee. parce parce que bu ñu d' accord dama ne dañuy wax ne d' accord ñu. rasulilah assemblée lu fa xew te d' accord dama ne c' est bi am na lu mu waxtaan ak ay nit joxe ndigal. joxe kàddoom. tegu ci incha allah. Mm-hmm. moo suñu borom ne tekk tànkam lu ko. mu toog ay fan gisul loolu. te daa lox muy dëj. Mm-hmm. suñu borom teggilu kàddoom da koy jàngal. ba bés boo jot mu wax ak yàlla mën na ko ne incha allah de man la di. wallaay ndeysaan yaa gën ci li ma bind waaye dee ma bàyyi xel ne man la xam li dama wax loolu mooy ñoom ci seen bopp ñoom ci seen bopp nanu bàyyi xel ne saa su ne atte bu ñu atte bu neexee sénégalais am nañ droit kaas ko wala ñu joxe ci seen avis wala ñu ŋàññ ko sa gëm yëlante bi salaa salaam la suñu borom wax ne doon nii la ñoom waruñu bañ ko leen ŋàññ et puis nag qu'on le veuille nag man j'ai l'habitude de le dire comme tout le monde des fois da ngay gis ne justice bi dafa jeng à double vitesse je vais pas répéter comme yenn cas yi damay tàmm di wax kii bugaas li ba nga ne ma bugaas exemple du ma ci jaaraat <laughs> du ma si jaaraat ah. mais nag dafa nekk exemple bu am bu am solo. non parce que kon ma ñëw ci xamul wax. waaw bu am solo sax le cas de Bougazelli li tax mu. li tax mu extraordinaire. non li tax mu extraordinaire ah, mais cas li tax mu extraordinaire mooy. ah oui dërëm un franc boo ko falsifié. Mhm. suñ la waxee procédure. pénal yi nga ne moo ci ne de zéro à cinq ans ci xaalis. di gën a néew. waxatuma laa yow jàpp la ay millions de dollars. très bien millions d' euros millions de CFA. filmer la ngay corrompre ay gendarme très bien. Euh, euh, euh, corruption nangam ak nangam. vidéo yëpp wane la. ñu yóbbu la. ci yow <laughs> nga dem dugg mu ci par rapport dafa dafa am lu ci garaaw lu ndaw te mi ngi tëdd ba léegi ay dafa am ci garaaw sax juróom benni weer weeru kaso mu joxe certificat médical liberté provisoire li ma ci gën a def problème